Oke, mama yaakaar naa leer na analyse bi nga def donc ñu wax ci li nga xamante ne moo lëmbee réew metti na lool euh, ñu xëy euh, ñu def li nga xamante ne moom moo di couvre-feu muy commencé woon depuis boobu presque liggéey yu bari daal di nañ arrêté moment lan ngay wax ci couvre-feu bi nga xamante ne woote nañ ko. ah metti rek metti rek ji ñaan président de la république Macky Sall Sall ngaari lam tooro Bourguédé ah man dama laa war a feccal sax ndaa daal li ma kii ndaa daal li ma kii ak maa mën a fecc fecc tukulóor dimbali ñu yokkal ñu heure président boo bëggee ma feccal la ndaa daal li wax nga lépp mën naa ko dimbali ñu nga nga yokkal ñu heure bi rek ginnaaw couvre-feu mënta ñàkk te couvre-feu mënta ñàkk yokkal ñu heure bi maa ngi toog sama kër mais gis naa ne réew mi métti na. circulation bi métti na damaa demoon Dakar benn bi ma dem daral uti nag diggante seraas ak pour nga dugg. laa ilaha illallah ci yoon yi lañ doon jaar te loolu Njaga Njaay mënta jaar ci ci yoon yi ci yoonu suuf yi. Mhm. super mënta jaar ci mhm. yoonu suuf yi mhm. ndax ñëpp dañuy bañ vingt et une ci àll bi. maanaam pour. policiers yi di leen dóor. Mhm. man bi ñuy daw am na xam bi may bi ñuy nekkee ci circulation benn xale bu góor daw na. Mhm. mais Selbe yóbbaale ma balaa heure bu baax bi jot. ñëpp heure bu baax bi lañu wax. Mhm. ñun de amuñu kenn ku dul président. ginnaaw yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak suñuy sëriñ. président mooy suñu njiit. moom la yàlla jiital on est fier de lui. metti na waaye du tax ñu xàddi. ndax yëpp sunu borom rëddoon na ko. Mhm. mu jiitu sunu sunu sunu judd. Mhm. lu war am la rek. Mhm. d'accord nañu mais bu ñu yokkaloon waxtu yi ba vingt trois heures. confinement sax defe naa ay fan la rek. yàlla na fi yem maanaam mu bañ a amati moo ñu gënal. su fi mu yokkal ñu waxtu wi rek. waa Thiès ak waa Ndakaaru am problème yeneen yeneen kii yëguñu ko mais Ndakaaru nit ñi dañoo bari. Thiès nit ñu bëri. Mhm. te daanaka am na ñoo xam ne dañuy jóge Thiès di ñëw Dakar di liggéey si ñu bari Dakar la ñuy la ñuy liggéey see. Mhm. kon nañu jàppale rek. Mhm. Sall président ku baax la. ok maman nga nekk taalibe Serigne Touba loolu kon kenn nattable wu ko parce que sànq rek joxe nga li nga xamante ne moom moo di exemple ni la sëñ bi walloo bi nga ko soxlaawee donc firndeel li nga xamante ne moom moo di sa taalibe sa diggante ak ki nga xamante ne moom moo di sa papa di seriñ Moustapha ñu gis nataalam mu tiim la ni euh, relation yi nga am ak ki nga xamante ne moom moo di sëñ Moustapha parce que foo wax rek da ngay ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay njabootam sa digënté ak ki nga xamanténi mom modi moo di sëñ Moustapha bëgg nga waxal mako aduna bi na xamné ne sëñ Moustapha si yalla moom moo boole ak mom dama gis sëñ Moustapha si teud suñu borom won ma sëñ Moustapha si dugg sama biir kër man 2012 la la liggéey liggéey bu normal 2012 2013 ma dem 2013 ma ke 2014 2014 moko aduna bi ba ma jógee Makka la sama liggéey makan ci ko xamne mako yoron sama bir keur mu nek sama goro di mam Abdou Touré nek sama goro mom ci bopam mu tak sama domi rak di mom bokal nday ak 2014 la len wax de kilian buma am jox ko ndax bu muy tak sama dom amul dara papa moko joxel may gu njëkk ñu nag may dégg bu baax dama expliquer lu leer ndekete mi ngi wër ci all bi nan mom moo may waxal ni ñepp ba 2014 2015 2016 2017 2018 ba 2019 ba 2020 ci laa ne nag ëpp na xaaral ma jóg leeral jaam ñi ne man kenn waxalu ma yàlla may waxal ndax dama ko judduwaale dama gën sëñ Moustapha Sy si Malick moom mu ubbil samay robinet sëñ Moustapha ma jékki-jékki gént ko mu gis ko sëñ Moustapha Sy dugg suma biir kër fekk sama robinet yi tëj sëñ Moustapha ma samay robinet moo tax ma dem wëri sëñ Moustapha Sy loolu ma boole sëñ Moustapha sëñ Moustapha Sy ma man mii ma wër sëñ Moustapha Sy ndax damaa tëdd gis suñu borom won ma sëñ Moustapha Sy dugg sama biir kër ubbil ma samay robinet ndox mi di xelli ci seet nu ko jege ay taalibeem ma ne leen man de gis naa sëñ Moustapha ñaari yoon muy dugg sama biir kër ubbi sama robinet kii ma ubbil sama robinet yi ba sama liggéey commencé doxaat te yàqaloon nañ ma sama sama liggéey ab nit taxaw ne moom mooy waxal te loolu yëpp ay kàcc la ay nar la sëñ Moustapha Sy ñëw ci baat ñu ubbil ma sama robinet wala lañ ma sëñ Moustapha Sy loolu tax mu mu ñu war ma sëñ Moustapha Sy si malik mu recevoir ma recevoir bu rafet ma ne ko damaa gis nga dugg sama biir kër ubbil ma sama robinet si malik sama liggéey dafa taxaw ay at expliquer ko mu ree reetaan bu def ñii ne ma baax na lépp dina baax loo tax ma gëm sëñ Moussa Fassi fasin teg moom kóllëre si Malick mu doon ku baax teg ma nag ci kaw fonk ma lool si ni ma fonk yal na ko yàlla fonk yàlla fonk na ko sax ndax wàll yu kaamil la yal na na yàlla yëkkati maam seex mi nga xam ne jël na lépp teg ko ci moom mu sut sax Seydil Hadj Malick mi mamaatam ay fan dara ji Seydina Mouhamed sama kóllëre la gàmmam gi bu jotee tabaski sëñ Moustapha mën ci man sëñ Moustapha si daf may jox sama papa la ma sama papa daan defal di ma yeewal xar loolu ma sëñ Moustapha si def waaye gàmmu gi Abdou Aziz ak Ibrahima Gaye def nañ ma lu métti te bu nekkoon ñoom rek yàlla bu ma leen xam ci sama addina sama laaxira yàlla bu ma dajeeg ñoom. Abdou Aziz ban. Abdou Aziz yore cortège bi. ah ok bi nekk ci Serigne Moustapha damaa dem toog di xaar. kaadi feesut ànd ak sama délégation ñu ne sama tur rekk a ca nekk mhm. man bu ma sañoon damay yóbbul ay kaar Serigne Moustapha si su ma sañoon damay yóbbul ay nag sëñ Moustapha Sy su ma sañoon damay yóbbul ay gileem sëñ Moustapha Sy man sama bopp maa bëgg sëñ Moustapha Sy lu ma waay def jaral na ma ko dañoo lànk ne lu ma dugg ca cortège ba dem ba ma fa ña ma àndal ñibbi sama rak yi ma bokkal ndey ak di jooy ma ne leen damay dem ci waawoon ñoom fa lañ ma bàyyi départ dañuy wax sëñ Moustapha Sy dama tardé billahi wallahi wa tallahi sëñ Moustapha Sy tardé wu ma am naa sama délégation peut-être ma yolu xëy na nekkuma milliardaire loolu tax ñoom ñu def li ñu def waaye nag inna allaha maana la sunu la sidna waxoon Seydina Mouhamed waxoon Aboubacar ne ko ya abou bakr laa tahzan inna allaha maana billahi inna allaha ma'i suma ma dundee rek incha allahu rabbi dinaa defal sëñ Moustapha lu jaam ñëpp di gis ndax maa ko yéene sëñ Moustapha si gis nga bañ ma teree dem ca cortège ba damaa ñëw sama kër togg añ sama rakk yi di jooy ma leen faalew ma leen lu ngeen di jooy man damay dem sama benn rek ma ret na ma bul dem ma ne ko bañ a dem ñoom dañoo dem bàyyi ma buñ demee dañ naan sëñ Moustapha damaa tàdda wala leneen te billahi lazi la ilaha illa na ko maam Cheikh si xam maam Cheikh na xam ne Ibrahima Gaye ak Abdou Aziz ku gàtt ki te xees ñoom ñoom ma bañ a yóbbu waaye damaa wàññeeku ñoo bëgg sama kër gi def sama ceebu keccax bu baax sanguwaat ba set woo borom oto fay ko fukki junni waaye mu yóbbu ma Tiwaawoon waaye invitation yoon d'honneur la ma sëñ Moustapha Sy jox ma dugg ne quatrième rang jàkkaarloog sëñ Moustapha Sy zéro mètre xanaa neex na. Mhm. muy wax ma taxaw ne comme si Malick di nga gudd fan di fi yàgg te di nga wér xanaa loolu neex na yàlla rek laa àndal. Mhm. li may def bu set toon ci man. Mhm. keroog du ma dem Tiwaawoon. tant que maa ngi dund sëñ Moustapha di ma jox ay carte incha allah rabbi damay dem Tiwaawoon. loolu ma booleeg sëñ Moustapha na ko nit ñi xam. bu nekkoon saay-saay yooyu rek man soxlawu ma leen a xam. naan sëri xaq bil xaq ji. kenn moomu ko. mul yaakaar naa leer ngeen dégg ngeen li mu wax li ko boole ki nga xamante ne moom moo di sëñ Moustapha ibnu sëñ Cheikh donc maman est-ce que làmb ji xool nga ko. ana làmb xaar leen balaa mu taxaw nag. am na am na am na ñu ñu jot a bëre wala ñoo ñu jotoo xool. ba xam kenn ñi ñu jot a tëgg ku ci mel ne Modou Lo Ama Balde. Balla Gaye Bombardier. Eumeu Sène ak ki nga xamante ne moom moo di Lac de Guiers guy gi rek rek. bu yegsee. Mhm. balaa nga xam ne tëgg nañu. Mhm. ñu jàpp dat. Mhm. làmb. dama bokk ci làmb. jinne làmb jaa ngi nii na ma gars neexal làmb ji taxaw. Mhm. dañ maa jël sànni ma fële. war nañ laa seet si de ndax ah, làmb waaye nañ ma neexal nañ man damay neexal làmb balaa am maag daam lu ma neex làmb am ñu yóbbu ma teg ma ci kaw <laughs> yéegal ma ci kaw ma tiim nit ñi ne kii mooy daan. <laughs> li may def dama ko xam ñeme ko. Mhm. li ma yàlla may xam naa lan la du tax ma tiitaru du tax ma beew. Mhm. làmb balaa nga xam ne làmb dëgg am na. ñu ci def signature contrat bañ japp dat su boba nga xamne lamb amna mhm. mais teug na diw man rek suma neexon damay taxaw man teug na diw ak diw mhm. nañ xaar ba signature contrat mhm. sel bi da baye yalla bopam comme nañ ko don baye télévision bi tay bu takkon ñaari mbeur nek si di beuri fi ma tok legui la nan ki moy daan nga toog te day fekk duma ko duma ko xol làmb léegi nekkatuma di ko jeex di ko pettaaw di ko seet. Mhm. damay tëdd xaar yàlla. Mhm. xanaa lu ma xamut lu dugg ci bopp bi waaye lu ma gis mu dugg ci bopp bi ma xam événement. Mhm. même football. dama naan la lii mooy am loolu don don la jëlee xam nga won naa la. gis nga takkuma dara. lu ma sunu borom defal la. ñiy kàcc di fen naan ñooy waxal selbe nañu arrêté. Mhm. <laughs> ñoom duñ selbe selbe du ñoom. mbaa nañu arrête de faire genre comme ah, Pawlish Mbaye. arrête ah, <laughs> arrête de faire xaw connerie <laughs> les conneries là. Mhm. ok maman dafa mel ne li ñu loon ci waxtu mu ngi xuus jeex mais nag dañ koy tëjee ci ñi nga xamante ne ñoo di seetkat yi bëgg buzz rek ku ci bëgg buzz rek da ngay jaar ci ki nga xamante ne moom moo di maman Selbé boo ko tudd rek yaakaar naa doo am buzz ndax comme ni ma ko waxee woon sànq avant may commencé rek ba fi kenn ñemewul moom rek moo amoon fitu taxaw yor génn ci télé wax ne lii ak lii ak lii ñu bari ci moom la ñu jëlee ba commencé ñu daal di fii bari dañoo seetaan kii di Daba yi mu daal ne moom du Selbé te Selbé du moom maman la parenthèse bu ndaw rek lan ngay wax ci loolu akay deug li lo wax lolu soxna daba wax sama rakk joju li mu wax deug la du selbe selbe du mom soxna daba waxna na re daba boy ya wax deug selbe du yow yow do selbe selbe mo fi taxaw di wax lo xamne ñu wogut ñaata yoon Balla gay dina daan yekini nga xamne bari na 16 ans ngembam lii laalu suuf Bombardier tafatine Bombardier yore deretam puso bënnut yaramam lañ set daggut yaramam nii tafaatin Selbé Ndom taxaw ne leen deret dina am waaye wax na dëgg waaye daba booy du man manit du ma daba waaye daba c'est ma sœur ma sœur je t'aime doo man duma yow mm, ah duñu mës a fàtte duñu fàtte nag yaay booy ki nga xam ne kàcckat bu mag bi fenkat boobu dëkk Kolda doon wax ne moom la yonent bi ah wax nga dëgg waa maman loolu foog nga kii ci oh, oh, il paraît que ne jàpp nañ ko parce que ñi ngi doon wax pédophilie parce que ay xale yu ndaw fekk nañ fa ay tout tànk yoo xamante ne ah. dafa nekkoon ak ñoom laa ilaha illallah allahu akbar mhm. adduna bi yëpp nañu laa ilaha illallah allahu akbar mhm. waxoon naa leen fi mhm. damaa mer bay lox ne lu tax benn yonent la yonent amatul ma ne maa ngi ñaan président Macky Sall mu jël corps yëpp gendarmerie policier militaire yëpp ñu wàcc fa def fa descente wala na ma Macky Sall mission boobu man ma dox ko dinaa ko roose mété ba mu sedd wala ma di ko daggete daggete daggete ba benn dagg-dagg kii dafa xaraam gis nga la mu woote dara jëy Seydina Mohamed mm-hmm. kii lii sax tuuti na ci moom gis nga ni ko yàlla toroxale di woote nga ne yonent nga ba da def sa kaaba di tawaaf mhm. fan yi am na lu ma wax ma ne dafa waroon def safa ak marwa mhm. fa ndox ma bëttoon mhm. da ko war a def ah kii ma doomi haram kii ma doomu xaj kii mu haram kii tekkiwul dara gis nga ni ko yàlla toroxale ndekete moom mu zabzabiina la laa haulaai wala haulaai nga rey njuule yàlla lalan rus naa adduna bi waay wallahi wa taala xamoon nga ne yàlla dina la toroxal jubalal caméra bi ci man xamoon nga ne sunu borom dina la weer ndekete yaa ngi di jël ay xale yu di leen tëddee yaa haram wooy Macky Sall tëj waay ننكتي أبي كي لموتون شنو يننتي بسال الله عليه وسلم محمد رسول الله يلا تقو كنك الله لا كما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا قلم تك أول محمد آخر محمد ظاهر محمد باطن محمد ممنا ما يننتي خناي انترنت بي ادنا بروسنا لين سينو دنا كو خرمال كانيل كو جمبول كو لاج كو ديف كو نوكس ok boobaa looy tàggatoo. sama numéro bi nag dugal leen ko. incha allah s'il mhm. gis nga lii may liggéey. Mhm. moom laa am rek. Mhm. Hmm? su ma su ngeen gisul su ma gisul ngeen dugal ko suuf écran bi. non dina dugg hmm? am na waaye suba am na de yeneen match yu neex yaa ngi ñëw yeneen xew-xew yaa ngi ñëw. 77 744 39 18 ndax dafa am ñu nekk ci internet bi ñuy woote. Mhm. ñu ne ñoom la selbe di nax nit ñi di lekk seen alal. Mhm. selbe benn la. Mhm. selbe bii la. la benn selbe bii moo fi ne. selbe bii kese la ku ma soxla soo ma wooyee vidéo danga may gis. benn sel moo fi nekk 77 la 194 24 40 benn selbe bii kese moo fi ne ku ma woo digg ma gis. ñi leen di woo naan leen ñoom la selbe ñoom nekkuñu selbe ku bëgg xaalis danga koy liggéeyi feneen waaye topp ne man maay selbe di lekk xaalisu doomu aadama ñi di ma woo naan ma joxoon naa la nangam ku ko ci def buñ la jàppee di nga dee ci kaso bi man toppandoo ma kenn sëriñ yi nga xam ne ñoom ñoo leen di wax ne man maay bindal selbe man maa man maay waxal selbe mhm. dañuy fen ku dugal xaalis ci àdduna bi mhm. pour selbe seytal la ku du turu selbe ndoom mhm. du man fii laa ko waxe dental tv képp ku ngeen dugal ci turu set pour ñu dee seetal leen bu dee selbe ndoom bu dul ci sama tur yi du dëgg di joxe numéro yi 77 447 80 25. 77 737 67 46 77 194 24 40 yëpp am na whatsapp 77 744 39 18. ñeenti numéro yi. ma joxe maa ko moom. yeneen numéro Tigo aw ma Tigo aw ma Expresso ñu ngi rey waa Europe bi Suède ñu ngi rey waa àdduna bi ne man la sel bi di la woo naan damay seetal léegi seen profil ñu ngi ci def benn kànnaar ak man man defuma kànnaar sama kër amul kànnaar <laughs> defuma ay morceau yu xonq yooyu biddaa la mm-hmm. Mm-hmm. yaa koy dagg yaa koy utiliser il faut être naturel mm-hmm. yal nañu yàlla defal jàmm siit bi yàlla yóbbu ko ci kaw darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm di sant ñëpp daje su ngeen ma soxlaa bu ngeen ma woowee. Mhm. maa ngi fi. Mhm. su ngeen ñëwee ci daara ji yëmbal la benn. Mhm. benn braak. waaw yal na yàlla def jàmm ci réew mi. ok ami internet de la Dental TV eh, dañ koy jaajëfal bu baax a baax kooku moo nekkoon ki nga xamante ne moom moo di Mama Selbé Ndom nekk voyante bu mag fi nga xamante ne moom moo di Sénégal dëkk fi nga xamante ne moom moo di yëmbar route de di ko jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi parce que bu ko neexoon buñ ko woowee mu am nu mu mel mais defu ko donc di wax képp koo xamante ne rek yittewoo nga ko numéro yi dina jaar ci barre d'écran bi di jaajëfal bu baax a baax sama caméraman muy góor a naa leen bu gis-gis bi leeree dégg-dégg bi neex du ci ci ñoom la ñoom ñooy les hommes de l'ombre ñëw leen seet si ki nga xamante ne moom moo di Mama Selbé seen aajo faju man nag dama koo bëgg lool sama yaay sama xarit <laughs> ok ba beneen yoon ah.